parce que au niveau de la mairie d'abord, abord bi nga xamante ni moom moo délivrer certificat de résidence dañ fa gis ay euh, ndëgg qui yoo xamante qui ni maire bi daf ko teg pour indi ay jafé jafé ci walu délivrance su certificat de résidence yi jafé jafe bi mu jëkk tek moy wax ak délégué de quartier nek ci commune bi ne leen bu population yi ñëwé té leen certificat de domicile bu leen leen jox wala ngeen indi ci ay yéexantu amna na ñoo xam dañuy dem gis délégué de quartier ñu naan la amuñu imprimer suñu kayit gi dafa manqué kayit gi la dafa manqué lepp xam nañ fu mu joggé buñu joggé ci certificat de domicile ñu dem ci maire bi di wut résidence dafa jël ben nit tek ko fa tey mbaaw ku xam nu mu tollu xam li ñew bir maire yi di wut ay certificat de résidence ben nit mënu ko gérer nit koku bo ñew déposer certificat de résidence war ko déposer suba gi jot ko ci ngone gi da na la yóbbu ñaari fan ba ñetti fan pour nga jot résidence situation boobu biñ ko constater ñun ñëpp alerté ba ñëpp dégg le gouverneur de la région de Dakar gis nañ mu gëné lettre circulaire ne mom ci bopam en tant que autorité jot ay remontée d'informations. yo xamné amna ay amna ay maire yu def dilatoire ci délivrance certificat de résidence té commune de Mbao bi ci la bok té ki jité maire bi di Ablaye Pouy Obama bi lolou amé ñaari fan lañu ci le gouverneur jël ay responsabilités am ne léegi dorénavant képp kuy préfet wala sous préfet mën nga délivrer certificat de résidence parce que maire yi dañu bari ay tiaxan ah ci lolou nak ñun ñu commencé organiser suñu ay nit ñen ñi dem sous préfecture mais ñeneen ñi aussi dem au niveau de la ville de Pikine parce que ñun ñëpp xam nañ ni la ville n'a pas de territoire ville dañu ko créer pour mu mutualiser les compétences de la commune loolu moo tax ñu dem seeti l'officier d'état civil de la ville de Pikine yabal fa suñu ay nit ñu ut ay certificat de domicile ci commune bi dans leur quartier respectif dem ci ville bi ut fa ay certificat de résidence bi ñuy ñëwee ci commission bi nag ñu gis lu ñu jaaxal foofu ndaxte commission bi ay la yéwén dañu ko loger ci biir mairie bi te ñun ñëpp xam nañ ne bukki kenn du ko ay seel tey bañ ko defee ci biir mairie bi lañ indi ay jafe-jafe parce que ka fa nekk du démocrate xamul lan mooy nan la ñuy yoree parce que mairie ñëpp a ko bokk tay maire bi dafa tek ay nit yo xamanteni ni boy ñëwé ci buntu bi rek dañ naan la loy ut nga ni damay dem ci commission bi ñun la ñu xol keuyit bi nga yor bu ñu xoolee kayit bi nga yor muy certificat de résidence bo xamanteni ni ville de Pikine mu la joggé ñun nanguko daw ak mom té amna ko xamanteni tay ne tey témoin la gis na ñom ñu def ay publication dugal certificat de résidence yoy ñu keuf euh di wané ni ay fraude la ñuy def alors que kooku tey témoin la mi ngi fi tok té dina jël plainte am bind ko yóbbu ko gendarmerie

Et lui, c'est un acte citoyen c'est devoir de la population Que képp koo xamante ni def transfert transférer